kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm aas am say ngërëm ku am kër gu mel nii ci réew doo gëlëm Tiwaawan a woote ko nabu wéy jileeb ku nabu wéy de maam aas am say ngërëm téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan mu mayaam. ci waa waa la waa kër kanam wuy ji leen bu nekk wuy ji maam aas am lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu. nu ñaanu tur bi yàlla mu tolli mayaam ci waawoon a woote kon ay muy jile ku njëkk wuy ji maam aas am seyna lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu waay sos ngir yàlla mu la du dox jëm kanam li maam Maodo sos fii du dox ngir cërëm ci waawoon a woote kon ay muy jile wuy lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu dul yàlla nee na laa du dox jëm kanam li maam Maodo sos fii du dog ndax cërëm i waawoo na woote kon am wuy ji leen ku def wuy ji maam aas am ay garam xewal naan si ku naanul ji mam aas am say ngërëm ku nangu ji leen aas am say ngërëm force lii ca njëlbeen mu naan fii bëggor saane ñëw leen déwén baa ngi jii di wéy jëm kanam waawoon la woote ku nangu wuy ji leen ku dëggu wuy ji maam aas am siiga nonoy gën ji mbindeef la aas yor ci fii nonoy Seexu Tijaan la aas xeñtu fii ku jëf lii ci duniyaa ñu jox lay ngërëm waawoon ci waawoon ma woote kon nag wii ji leen ku jóg wii ji mam aas am say ngërëm ci waawoon ma woote kon nag wii ji leen ku jóg wii ji mam aas am say ngërëm ci waawoon ma woote kon nag wii ji leen ku jóg wii ji mam aas am say ngërëm ci waawoon ma woote kon nag wii ji leen ku jóg wii ji mam aas am say ngërëm taflid niin jëfam yi mu jëf kuray am nga neen ci faa dem tiim ay nitam i waawoo la woote ko dam wuy ku dem wuy ji maam aas am say ngërëm du niin jëfam yi mu jëf kuray am nga neen ci réew dem tiim ay nitam i waawoo la woote ko dam ji maam aas am sëy na ca njaam rek ca jag ci mu jàngal julit te naan wazifa li lee tax ma jóg tey diem ay jëfam ci ma woona woote ko damu wuy ji ku damu wuy ji aas am sëy na ca njaam rek saw gosaas ngambu ci leen mu jàngal julit te naan wazifa li lee tax ma jóg tey diim ay jëfam Tiwaawoon woote kon nag wuy ji leen ku ku jóg wuy ji aas am say ngërëm ku am say ngërëm waaw ci réew doo Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu la am téeméeri lu gàmmu la am téeméeri lu gàmmu la am borom parasol baa ngi am nay ngërëm nu ñaan tur bi yàlla mu tolli mayaam Tiwaawan la woote ana wuy ji leen ku ne wuy ji maam aas am say ngërëm lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am borom parasol baa ngi am nay ngërëm nu ñaan tur bi yàlla mu tolli mayam dox jëm lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu julli yàlla neen laa dox jëm kanam limaam Maodo sos fii du dox ngir cërëm waawoon woote konal muy ji leen ku jóg wuy ji maam aas am ay garam lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu julli yàlla neen laa dox jëm kanam limaam Maodo sos fii du dog ndax cërëm i waawoo la woote banam wuy ji leen ku jóg wuy ji maam aas am xëy gërëm xewal gaa ngi kaay leen kon nag wuy leen xewal gaa ngi kaay leen kon nag wuy ji leen xewal gaa ngi ونبوي جلال ونبوي جمال قاس أمسي قلال جواوا نواتي كنك ويجلين كجك ويجي مام قاس أمسي قرام جواوا نواتي كنك ويجلين كجك ويجي مام قاس أمسي قرام أمام أسدي سوسلي تنجل بين لون منان في بقرسان يولي wotem baa ngi tey jii di wéy jëm kanam imaam war na waate ku nangu wuy ji leen ku nangu wuy ji maam aas am siiga danay ji mbindeef la aas yor ci fii danay Seexu ku jëf lii ci ji leen aas am siiga am as am na woote kon ku dem wuy ji am say ngërëm ci waawoo na woote du niil jëfam yi mu jëf fii ku roy am nga neen ci réew maa ngi faa dem tiim ay nitam i waawoo na woote ku lam wuy ji leen ku dem wuy ji maam aas am say gërëm jumaa yi jàkkaam yi mu jëf lii du nin jëfam yi mu jëf fii ku roy am nga neen ci réew maa ngi foo dem tiim ay nitam i waawoo na woote ku lam wuy ji leen ku dem maam aas am saw ko ngamb ci leen mu jàngal julit yi te naan wazifa leen li lee tax a woote saw ko ngamb ci leen mu jàngal julit te naan wazifa leen li lee tax ma jóg tey diem ay jëfam ñaawoo na woote kon ak wuy ji leen ku jóg wuy li maam aas al seyna ñaawoo na woote kon ak wuy ji leen ku jóg wuy ji maam aas am say ngërëm ñaawoo na woote kon ak wuy ji leen ku jóg wuy ji maam aas am say ngërëm ñaawoo na woote kon ak wuy ji ngir wuy ji na woote ko nag wuy ji ku jóg wuy ji mam aas am sey ngërëm ku am sey mel nii ci réew doo waawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am borom parasol baa ngi am nay ngërëm nu ñaan tur bi yàlla mu tolli mayam Tiwaawan la woote gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am ala nabi wa alayhi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 حسين لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا